salay jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow am tourné yaakaar naa euh, muy diggante Zarko ak Bébé doon ko bëre saison passée yàlla dogal kenn ki blessé ba ñu pousse ko ba combat bi war dem saison prochaine incha allahu rabbi datu combat bi combat boobu nu ci jëm fas yéene allah waaw Zarko Bébé Diène comme ni nga ko waxee demande social la combat boo xam ne bi ñu ko tëggee coow li bari na ci yàlla mi dara tawul ñu ñëw di ko waaj ba combat bi jege si yàlla ñëw ak ndogalam ñu santee ko sunu borom ndax yàlla nag lépp lu mu la def rek du tëj buntu tëj palanteer am na lu mu la jencal bébé jën am blessure ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak jàmm ba mu dellusiwaat suñu biir compétir nekkaat continuer waat carrière am ba mu amee médical ñu ñaanal ko nangul ko ko xam ne ndog la champion la bëggoon na ci bëre yàlla sottalu ko dañ ko koy nangul xam na ndogalu yàlla la toog xaar di ko ñaanal mu wér bu wéreeg jàmm ba ñëw dugal guérison am incha allahu rabbi ñu organiser lamb ji ndax nag jël nañu date le 15 décembre. le 15 décembre nga jël waaw le 15 ko ci organiser su bébé jën wéree allahu rabbi ñu organiser ko ci wérul tamit walilahi alhamdu ñu ñaanal ko nag balaa boobu mu wér. tamit am nañ sunu palaa B boo xam ne dinañ tëgg làmb le 15 décembre incha allah rabbi waaw. est ce que yaa ngi waaw ñu ngi déggante wax dëgg yàlla ñu ngi déggante di waxtaan waaw maa ngi am information ci moom waaw di ko ñaanal daal mu wér ndax wérey lépp comme li ma ko wax rek mu gaañoo ñu déggante loolu laa ko dama ko ne champion sa combat bi nga mujj ñaari combat yi mujj bëree maa ko tëgg benn bi bi làmb ji desee deux jours def na accident boo xam ne bu doon keneen du bëree bi ma gisee image yi comprendre dama non lamb ju yakuna yàqu ma lu meuna xew damay beure kon bu ñewé beure bobu lamb jo jall ci jàmm ak lu ci mënta xew bi bu ñewé mu li dal ko ndax ku ko xol xamne ne dafa febar xam nga amna yene blessure mun nga wax borom ki day tappale wala dara way ku dem bañ opéré ko lol nekul waxi caaxaan so ci waxon lenen tay gatcha mo la ci dal moo ñun lepp lu ñor dañ koy jël ak philosophie en tout cas dal mang koy ñaanal yalla may ko tan ñu ngi déggante maa ngi koy encouragé di ko soulager di dalal xelam comprendre nga ndax looloo ma war. waaw. mu mel ni kim mu ko war a seexal tamit muy Zarko jël na beneen avance loolu tamit euh, nu muy deme te moom est-ce que combat am du ko bëree ak Alburax avant maanaam mois de décembre moo Gris Bordeaux. waaw Zarko maa ngi koy siyaar bu baax moom tamit wax dëgg yàlla ndax nitu kese la euh, nañ. waxtaan nañ comme li nga wax jël na beneen avance Sarko moom naa est-ce que balaa bëree sax moom moom day wër di jëli avance xam nga Sarko moom <laughs> fukki avance ak lu teg lay jël bon ñëpp xam nañ ne man awma problème ndax àdduna tey làmb day jeex amul solo man tey yàgg naa ko man ku ma jox cër ma dellu la cër bi ba mu mat waaye ku wàcc ku ma joxul cër du ma la jox cër te nag dafa am ay diggante yoo xam ne dafa rafet làmb da koy làmb da ko gën a gën a rafetal waaye waru ko gën a yàq Sarko dañ nekk ci contrat contrat bi mu am ak Jamaïcain ñëpp xam nañ ne am na lu ko ci yoon may man tamit am na lu ma yoon may su yàlla defee ma tëggal ko làmb mbër mi am blessure combat bi euh, yàqu règlement am na lu mu ko jox règlement yoon bi mu ko may mooy bu toogee trois mois bu toogee bu toogee trois mois adversaire am tenewul su ma ko tëggul am na droit dem bëri combat promoteur bu nekk libre nga pour jox Sarko combat Sarko tamit libre na pour dem bëri jël promoteur bu ko neex ndax loolu du jamaïcain moo ko tëral jamaïcain da ko fekk règlement la kon combat bi mu jël muy Gris Bordeaux wax dëgg yàlla am na ci lo xamé tamit il faut ma témoigner ko salier ko ndax bu ko neexon buy dem di jël ji avance duma ko yek wala ñu koy jox avance su len neexon buñ ko koy jox duma ko yek waye nekkuma fi dama voyager ñoma téléphone Sarko kat dafa bëgg combat diw estafu Sarko woma mu nek mbeur mo xamné mbeur mu bax ci carrière ndax Sarko bi mu bisale ba légui day may ay sens kon bu demee ba war a bëree Gris Bordeaux ci condition yoo xam ne du la tooñ doo ko tooñ waroo ko ko xañ bu ko neexoon mën na ko jël sans mu tàggu ma ñu ko doon tëgg tamit mën nañ ko tëgg sans ñu tàggu ma bon Aziz en personne moom moo woo téléphone Aziz Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax na ma Zarko kat dafa bëgg a bëri Gris seet si nañu pour ñu tëgg ko am ak gri bon ñun relation yu ñu am ak yow xelaatuñu ko jox un franc te àndoo ci comprendre nga am yo xam ne bu la ko góor xasee wax amoto lo ci tek ma ko da nga bax rek Sarko mom ma ko Sarko mom même boko joxulon avance day jël avance mom day wër di jël avance rek diko togn mune mo lepp luñ ci def ah ci sa accord lañ koy defee ba paré xamal Sarko ne ko ñu ngi lay jox avance waye bala nga bëre combat bi da ngay dem bëre jël comprendre nga jamaïcain ba paré ndax nak suñu digënté ñun ak mom dafa rafetal lamb du ko yak bu la leere ne bo jëlee suñu avance comprendre nga doo ko bëreel wala da ngay indi ay problème ñun duñ la jox avance comprendre nga te yoyu il faut ñukoy cédé comprendre nga mooy leen noo damay bëree ñu ne ma légui boko bu la bëreelee ba paré ñew bëreel ñu bu yalla dogolé Bébé jeen tan ci digënté bi day bëreeg Bébé jeen bëreeg gëri Bordeaux su yalla deful tamit Bébé jeen mënul bëree fi ak décembre avec plaisir Sarko day dem bëri jëg Gris Bordeaux ba pare du ci yàq dara su paree ñëw bëreel jamaykay ndax nag man yàgg naa taxaw fii ne promoteur bu ci fekk ma jël sama mbër jox ko avance nga dem si suuf di ko jox avance balaa laa bëreel daf may bëreel lu mu la jaral daf ma koy jaral comprendre nga yàgg naa ko wax àdduna yëpp di ko dégg te lool mosuma ci reculer mosuma ci dellu ginnaaw ndax ñun ñëpp benn lañ su fekkee ne yow da nga bëgg dara war nga mën ñëw jaar ci man ñu waxtaanee ko si njëkk ak teraanga xam nga day yomb kenn soxorewul kenn ñun ñëpp dañuy avancer dañuy am te yaakaar naa booy nekk ci dara ku la ciy jàppale du la yàqal man damay tëgg sama làmb tey Aziz di jëntil may sponsor sponsorisé ma Bombardier Reug Reug daf ma sponsorisé làmb ji jege si mu ne ma bul pay per view bul bul teg lambu ji direct jaay ko pay per ma ne ko non yéen sponsor yi mu ma man bu ma sóoraale li ma wax sama rakk laa lay wax yaa ngi dégg pay per view may dara pay per view tey boo gisee sponsor bu la jox xaalis tekkil samay baas nga takk ko jëlal samay blouson nga jox mbëri ñu sol seen blouson ñu jox nga jox mbëri ñu ñu génnee samay blouson boo xoolee ba mbëri jéeg rek rek bi ñuy mujj signature solum benn blouson te xam nga ci yooyu koo xam ne am na événement mun na ci jaay image am buy def loolu pour jàppale la moo tax mu koy def kon tamit bu ñëwee tey def nii dama xam ne Zarko ak Bébé Diène nag combat la combat bu neex la yàlla bu fekkee bébé jën tene na ñu bara bëree décembre wax ko ci dara bu bébé jën tamit wul ci diggante bi Zarko yoon may ko mu dem bëre ji mm-hmm. na dem bëre ji Gris Bordeaux avec plaisir bu boobaa nag jam production moom dana xam ban taxawaay la ci am kontaan ci yow maa gën a bëgg ci yow waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu képp ku loon ñuy suivre di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu sama papa père ba bu baax ak sama directeur Mansour Ba ndax ba moom lépp moom la maa ngi koy nuyu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm xewul sutura mm-hmm. waaye nag di nuyu sama xarit sama doomu ndey mhm. alaaji Omar Sow waaw président ah. suqali réew mi Omar Sow mu Bambey Omar mu Bambey borom siin borom Bigé borom Guansu maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu soxnaam di nuyu njabootam mhm. di nuyu famem yëpp mhm. ndax Babacar nag kooku kenn la ci man yàlla ko yàlla defal jàmm sàmm ko sàmm njabootam wax dëgg yàlla jooyu dara dara ndax. waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a daal maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax a baax baax a baax yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla suturaal sàmm ko sàmm njabootam nuyu soxnaam ak njabootam yëpp nuyu sam pap père bu baax a baax ndax père ba lépp moom la tey bu lëg lekkee alam na ko gërëmee cooy maa ngi koy sant di nuyu njabootam yëpp di wax ne nag Babacar ku footoon bëtt rottir bar en tout cas maa ngi nuyu première dame. sama jarbaat ah, jarbaat dëkkam instant yi nii da nga mënoon laaj ana maire beeg ana xale yi waaye la cinq loolu day dakk waaw alalu mineur bi moom la cinq ci kàttanu yàlla maa ngi profité di yëgal ñëpp la cinq dañ may may soxna fële ci géejawaay ca marché bu waaw mu nga xam ne mooy war a nekk tous les premières dames des promoteurs waaw nekk tamit mi première dame des premières dames promoteurs yëpp yëpp maanaam seen première dame ñëw na ñëw tey mooy ki nga xam ne tamit bu ñu doon tànn miis si jabaru promoteur yi mooy numéro un waaw léegi nag deux deuxième yi nañ ko xëcco comme neex affaire baa ngi noonu nga xëccoo deuxième. Modou Moustapha nag war nga ko wàll. non bu ma jógee ci man mii de moom la. Modou Moustapha li mu nekk ëpp na da jam. célibataire moom mën naa koo doon di ko muñal ku ne. waaye bu ma ci génnee kenn dootu ci de. am na solo. ma dee ci door. maam góor gi Ndiaye sëtub maram jiin. bàyyi maam maram Ndiaye réew maa ngi may soo.